ayca dégg ngeen nin leen ko waxe woon ci jotaay boobu ba léegi yéen a ngi ñuy topp di ànd ak ñun ci taxawaay bi euh, muy li nga xamante ni wàccaayu euh, dîner de gala bu mag bi nga xamante ni regroupement des tailleurs mi ngi ko organisé jëm ci salle Auchan war a dajale waat euh, njabootam wara a yu bëree bëri boobu ba léegi yéen a ngi topp suñuy jotaay ñu ngi fii nag ci case ba ci médina Fall fekk si fi nga xamante mooy président Pape du fay muy amical bu ama am solo boo xamante ne ni dafa dajale les femmes coiffeuses février ñu def euh, amical bu mag a mag a mag a mag a mag pour lan gën a promouvoir mooy secteur bi gën ko dooleel bu baax a baax a baax ñoom it vraiment nekk euh, benn pàcc ci biir regroupement des tailleurs ñu def it euh, geste boo xam te ni geste bu symbolique la roy ci ñi nga xam te ni ñooy tamit vraiment seen ay nawle jënd li nga xam te ni moom mooy ticket VIP wax dëgg yàlla honoré li nga xamante ni nii moom mooy seen amical ñu jënd table bu mag vraiment war a ànd ak seen ay ñoñ def forte délégation noonu ñu leen waxe boobu ba léegi ñu ànd ak euh, commission organisation ak euh, événementiel euh, ñëw fii nga xam te ni moom mooy seen siège fii ci case bi fekk si fi Pape Modou war ko jébbal li nga xam te ni moom mooy tikkeem vraiment ñu jëm rek ci bës bi nga xam te ne ni mooy ces yëpp moom la ñuy xaar muy dîner de gala bu mag boobu duñu sori dara te nuyonte wu ñu moom bàyyi la ngeen dégganteeg moom muy ki nga xam te ni mooy Pape Modou Faye Pape ñu ngi lay nuyu. waaw Pape ñu ngi lay fay di wax rek asalaamaaleykum di nuyu mboolem ki ñuy seetaan ah, di jiital ci nuyoo bi président Modou sekk bu ñu ko nuyoo rek daanaka képp kuy nas puso dina ko mën a jàllale ci nuyoo boobu waaw ah, di nuyu tamit euh, Gawsu mi nga xamante ni mooy <coughs> président événementiel di ko jaajëfal di ko masawu coono sa xam ni lii muy def nii ñun la koy defal di nuyu waa amical bi amical bi bàyyiwuñu kenn ñëpp ñu ngi leen di nuyu di la nuyu yow Pape ak mboolem staff bi nga àndal yëpp. Mm-hmm. jërëjëf euh, tout d'abord dañu koy félicité moom Pape du fay ndax euh, récemment rek lañ ko élire ci li nga xamante ni moom mooy euh, bopp amicale des tailleurs et des coiffeuses bu Jeune Nord muy association bu mag a mag a mag a mag wax dëgg yàlla vraiment ñu teg ko ci bopp ba ñu ngi gërëm tamit suñu rakk ji nga xamante ni moom la remplacer mu ba Ndiaye mu liggéey ci liggéey bu rafet vraiment mais yàlla dogal mu bàyyi ko bàyyi gu rafet jël ko jébbalaat ko ci ay loxo nga xam ne ñoom dañu démo euh, démocrate ndax ki nga xamante ni moom moo nekkoon ancien président avant ba di Matar Diène bi ñëwee rek moom moo ñu dalal du ñu fàtte Babacar Mbengue suñu rakk la vraiment jàmbaar la kon donc ñoom xam nañ leen ci rigueur xam nañ leen ci taxawaay euh, Pape du euh, regroupement de tailleurs jëm ci événement bu mag muy dina de gala boo xam te ni bëgg na dajalewaat njabootam bëgg a sargalaat ñi nga xam te ni ñooy les membres fondateurs depuis 2009 alors que amicale bi ñëw jël table ni vraiment kat kon dinaa ci dugal sama loxo bu baax a baax a baax a baax a baax loolu moom euh, yéen kàddu nga ci mën a yëkkati. waaw loolu Pape dinañ ci sawar lool ndax euh, regroupement bi ma damaa jàpp ni képp kuy nas puso rek bu fekkee regroupement mi ngi yëngu dara kon ñun dañ cee war a taq bu baax a baax a baax a baax rawatina nag amical bi ndax yàgg nañ ko def mais incha allah ne fi mu toll nii nii day raw ah lépp lu regroupement bi di yëngu ñun ñoo ngi ci biir man damay faral di wax sax ni euh, regroupement bi. maanaam ñun antenne yi mm-hmm. ñun ñoo war a def ay activité effectivement bu ko defee moom dañuy appuyer rek mm-hmm. waaw rawatina nag kon su regroupement bi demee bay jóg di def nii pour ay membre am kon ñun kenn warut des waaw moo tax daal incha allah mm-hmm. lépp lu ñu war a def lu ñu war ci regroupement bi dinañu ci gis mu mel ni dañ ko miinoon ci le nuit de la de mode 24 décembre euh, certes mi nga koy waajal waaye mu dolliwaat ci euh, créer benn dîner de gala boo xam ni euh, maanaam dajalewaat njaboot gi maanaam ñu mën a toog mën a waxtaan gën a rafetal seen i jotaay gën a xalaataat ci secteur bi bu baax a baax a baax loolu moom ban jàngat nga ci am. waaw loolu jàngat bi ma ci am loolu dafa am solo parce que ay nit bu ñuy ànd waruñu di gëj di rawatina nag événement yu mel nii ndax événement yu mel nii mooy waral day boolewaat nit ñi xool ñi nga xamante ni dañ fi nekkoon xëy na dem nañ ba jot gi maytu leen ko wala ñu toog te xamoo lan moo leen tee kon dafay jaadu ñu dem fekk leen fi ñu nekk ñu woo leen ñu ñëw surtout ni ñu ko defee nag nga xam ne comme dîner de galaala bu ñu dikkee gars yi ñu ngi ci terrain bi chaque jour di yëngu xam nga tey ñu jàpp benn jour boo xam ne dañu tey dîner de gala la ñu ñëw àndandoo kafre xam nga comme niñ koy defee ak ni ko suñu nawle yëpp di defee ndax tailleur man yaakaar naa ni lépp lu nit di def lu ñuy yëngu rek loo xamante ni lu baax la kenn waruñu see jiitu voilà. effectivement ñu seetlu euh, zone nord bi. ku ne xam na leen ci njàmbaarte ku ne xam na leen ci man bés ak bu ñu waajalee bu ñu jógee rek dañuy ñëw ak forte mobilisation naka ngeen di waajalee dîner de gala boobu. waaw fii moom euh, loolu xam nañ ko ci zone nord amical bi moom eh, ku ko xamul dégg nga ko ndax saa yu nu musee jóg dañ xam ne amical bi jóg nañ mais incha allah bii nag moom da ciy raw te bu ñu dikkee dinañ gis beneen xar kanam waaw dégg ngeen ko lool di li nga xamante ni mooy jotaay bi ñu amoon fii ci euh, zone nord fekk fi président Pape du fay di ko jaajëfalaat nag très sincèrement euh, da mën nag jeune président laa koy woowee boo xam ni ndaw la ñu bari nañu rey ci moom parce que am na yar am na rigueur te maître formateur la en métier vraiment jàmbaar la ci métier boo ko fekkee ci saal yi mi ngi promouvoir li nga xam te ni moom mooy xam-xam ñoom ñu ngi góor góorgóorlu ndax lépp li nga xam ni mooy euh, euh, Kër Sayib Ndoy Medina Fall 1 2 ba Medina Fall extension li nga xam ni moom la ñuy taxawee ñu ngi ci ànd ñoom ñëpp di ci liggéey liggéey bu rafet di gën a promouvoir li nga xamante ni nii moom mooy formation professionnelle bi waaye fàttewuñ ni ma leen ko waxee boobu ba léegi suñu frère bi nga xam mooy Matar Diène moom it jàmbaar la mi ngi góor góorlu taxawal euh, une école góorgóorlu lépp mu affilié ko ci biir zone nord vraiment ñuy jàmbaare ñuy jox xale yi ay formation di leen gën a jàppale bu baax a baax a baax kon gàcce ngaalama les tailleurs gàcce ngaalama les tailleurs de zone nord particulièrement parce que ñu ngi góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax euh, dañ leen di jox euh, dig daje rek ci beneen euh, participant ak keneen koo xam ni war nañ ko jébbalaat li nga xam te ni mooy table d'honneur rendez-vous bi aussi soriwul ñu ngi jëm samedi le 12 fële ci salle Auchan ci dîner de gala bu mag boobule ticket yi nag disponible na marché central boo xoolee ci télévision bi la RTT TV euh, Gawsu Diop euh, boo ko contacter dina la man a kii wala service commercial wala boo demee ci seize groupement de tailleurs wala nga dem la RTT TV di nga am euh, ticket yi l'entrée c'est à dix mille francs table yi c'est réservé à cinquante mille francs et mille francs donc mooy li nga xam te ne waajal nañ ko jëm ci li nga xam te ne mooy dîner de gala bi yaakaar naa ni ku fa ñëw di nga gis loo xam ni di nga yëg ni les tailleurs ñoo xewlee solo ñu dem a si waat